bismil ilaahi ci barkeb sayxi faddilu mi buur yàlla dolli noo ay maqaama yàllaw bismil ilaahi ci barkeb yàlla bismil ilaahi ci barkeb sayxi fàddilu mi bur yàlla dolli noo ay maqaam yàllaaw bismil ilaahi ci barkeb sayxi fàddilu mi bur yàlla dolli noo ay maqaam yàllaaw uqal bukaa wala saddaati maay bëgg a way tey jii ma way fii sangub góor ñépp yàllaaw kookaa di seex fallu kookaa màgg moo rey mbir moo gën ñu njëkk ña gën ñi ñépp yàllaaw kookaa di seex fallu kookaa màgg moo rey mbir moo gën ñu njëkk gën ñi ñépp yàllaaw ku mel ni ma mosu fi am ku dootu fi am te dootu am fii duniyaa wóor na yàlla tey jii ma jooy Sayxuna Seex Fàllu mbar ma ni mes mboolem lu nekk ci duniyaa jooy na yàlla tey jii ma jooy Sayxuna Seex Fàllu mbar ma ni mes mboolem lu nekk ci duniyaa jooy na yàlla murid yi xaadir yi ak tiijaan yi ko jooy ak suusi ak asamaan seen ndoxum yàlla ak jant beeg weer wi ak biddi wi lépp ko jooy ak doj yi ak njanaaw yeeg njaayi àll malaayika ak ginne ak yoneen yi lépp ko jooy ak sabaya ak xutbu yaag wali yalaaw wéetal na ruy ci dunyaa kullu moo ru yépp jooy nan ko bismil ilaahi ci barkeb sayxi fàddilu mi buur yàlla dolli noo ay maqaama yàllaaw bismil ilaahi ci barkeb sayxi fàddilu mi